qui <laughs> Barcelone Barcelone yi le plus grand traître de l'histoire du football muy donc Luis Figo nga xamné ne joué na Barça joué Real histoire am nan la demee parce que dafa tek dil wa Barça ban dil la len tek ñu fas yéene ko waxtane mais laata boobu nak image bi lañ bëggoon tey partager ak yéen muy gis ngeen li xew stade Abdoulaye Wade ah. donc euh, ñi kaas ay kaasu café téeméer situation et tout gis naa ne am ñoo xam ne dañ leen fa doon mm, ci bokk ah boo dugal ki nga ko waxee noggatu ah parce que dama doon wañ wax benn mu wax day xaw a kii par rapport à dañ doon euh, am ñu comme je dis liberté d'expression dañ ko Sénégal mais aussi bataaxal bi le ki nga donc Sy Camara daal di ci li nga xam la gis tamit euh, stade Abdoulaye war loolu il ci indi ay ou gën ko leeral incha gën ci wasaare ko wax leen ci li nga xam ci joueur de l'année du côté donc du Bayern Munich par rapport aux saison bi ñu ah, donc play award bi gis nga lañ mais aussi Lamine Lamine Laftiat Camara donc ki a et eh, suñu borom jàppale ko parce que c'est un jeune bo xam il a beaucoup d'avenir dañ koy ñaan mu dem ci kanam et eh, boy bu yaru la ah, boy bu yaru la voilà mu ngoog maintenant nak hier gis nga ñaari milieu de terrain ñaari légende yi nga xam nak mu ñoo nekk équipe nationale kenn ki 100 sélection plus de 100 sélection maintenant kenn ki 85 sélection dépassé na ko léegi aussi muy Cheikhou Kouyaté ñom ñaar donc ñu rend hommage boy bi donc ki di Idrissa Gana Gueye ma ngi dégg ñaan non day baña jox ki waxul loolu Gana Gueye dafa né boy bi mi ngi ci yoon bu baax maintenant aussi mom mo wara def preuve parce qu'il a raison Gana Gueye 2011 la

pour mën a egg on a pour mon continuer di ñëw équipe nationale parce que beaucoup bëgg gagne Gueye boy booy di continuer ñëw équipe nationale mais pour loolu il faut mu def ay preuve mais il a raison kii nag di Sadio Kay magnifique Mané c'est quoi le problème avec ça Sadio Mané voilà donc démb matchs bi mën nañ ko jàngat ñaari côté ben côté mooy que ne voilà Sadio Mané démb dafa xawoon pression par rapport à envie gagner match bi parce que aussi voilà ñaari défaite du Sénégal il était sur le terrain contre l'Algérie démb Sénégal terrain la doon football muy seen Abdoulaye Wade donc il avait envie de bien faire pression baa ngi ci ben moment parce que aussi Sadio Mané c'est un gagnant. Benen point aussi, Sadio Mané était excellé hier parce que comme je l'ai dit sur le côté gauche, il avait d'habitude ben arrière latéral de Yek qui se projetait vers l'avant, qui apporter aussi aspect offensif. Dès on l'a pas vu avec qui donc Abdou Diallo donc Sadio Mané était excellé. Donc bi lui donne indi, ci waron indi munu ko nek. Il a été excellé à Talfoot foot Sadio Touré mi ngi fa. Tay tay bu fa ben Salu 6 wala ben Jacob Sénécon xeyna lolou du fa. Mais Sadio Mané également ma ngi dégg nit ñi nan dafa énervé wutu. C'est vrai. Hein, il, il a un tempérament chaud et tout, mais aussi, c'est pas la première fois. Depuis que je Liverpool, là. donc euh, tu as au Covid depuis Liverpool, là. parfois aussi, même, même si, même si pour moi, il doit être beaucoup plus mesuré, mais aussi, la femme, il faut que tu aies des gars, gagner ay trophées gagner ay titres bu ko fa nekk doo bëggati wàcc tu as toujours cette envie de gagner cette soif de gagner Cristiano Ronaldo ba léegi day casse de jour. chaque match bu def ko Messi da koy def parfois da koy def Mbappé ñoom mieux dañ koy def parce que faut le toll ah, donc ñi nga que tu yéeg nañ bay gagné un trophée mais chaque fois dañu bëgg di perte yenn match yi parce que aussi chaque fois bu ñu joué nit ñi dañ leen di bàyyi xel dañ leen di xool maintenant c'est à lui aussi de gérer ce ce ce ce je ne dirais pas de ce stress mais c'est à lui de gérer également cette envie cette pression bo xamné pression positive la war mëna mën doon ci moom et tout mais c'est un jour bo xamné comme je dis attention je ne suis pas dans ça je pense que hier il y a eu bien entendu une défaite collective le Sénégal a bien joué mais on n'a pas été efficace parfois le sélectionneur a fait de très mauvais choix parfois a fait des choix humains c'est ça le football aussi euh, comme je l'ai dit hier il n'a pas été trop percutant parce qu'il a été esselé sur le côté et parfois aussi il a voulu jouer individuel. Et comme je dis, ça aussi c'est des choses vraiment il doit se remettre en cause parce que personne n'est parfait. Mais aujourd'hui encore, des gens qui Coupe d'Afrique ñeenti weer ci des incha rabi quatre mois ci des jour pour jour donc il yàlla na yàlla may fekkee ko ak tal ko et on espère qu'avant boobu le Sénégal va rectifier beaucoup de choses et que Aliou également va prendre conscience que ne am na yoo xam ne fi quoi doy na ci moom muy lan muy muy teg benn équipe bu constant di teg poste pour poste bàyyi di tenter match démb bi gars yi ngi ñu ay non c'était pas pour tenter am match yoo doko perdre parce que match yoo xam day psychologiquement ci sa équipe démb Algérie psychologiquement am na lu mu jouer ci ñom confiance bu jox ci moom non on n'a pas été efficace c'est a voulu faire également trop trop voilà trop de Cissé tu vois et c'était pas ça mais quand même comme je dis pour ça manière. moi le problème c'est quoi il doit apprendre à se gérer gérer son tempérament et savoir que maintenant il doit tout faire mais de manière très posée mais aussi être beaucoup plus collectif équipe aussi qu'on essaie de construire encore une fois comme nous le Brésil une équipe qui autour de Sadio Mané donc apporter ce plus parce que Sadio Mané contre Brésil premier mi-temps bi gis ngeen ne demagul fa noonu deuxième mi-temps bi la percutant parce qu'il y avait toujours des joueurs yoo xam ne apporter li nga xamné moy possibilité muy am ay occasion et plus même occasion plus même chance d'aller di gars yi nak ban gis ngeen ci am way leen di like way leen di abonner bu leen faté gars surtout li ëpp solo ngir mën ñoo jappalé bëss leen ci li nga xam mooy donc abonnement bi ngeen abonné bëss ci cloche de notification bi aussi dem ci lien bi dem seetaan année Baba Show vidéo yu extraordinaire ñu ngi fa tay encore une fois on va parler de Luis Figo ak beneen joueur sénégalais inshallah allah rabi jaa